ami chers fidèles internautes maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci bi Equivox TV la chaîne leader mais aussi chez la chaîne qui informe juste en temps réel ñu ñëw ci actualité euh, people bi yaakaar naa ne nag jamono ji euh, people bi xaw naa yëngu tuuti dañuy dooree rek ak ki nga xamante ni rek moom mooy Ami Collé Dieng moom Ami Collé nag nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté euh, Sénégal muy un artiste talentueuse muy Ami Collé Dieng mi nga xam ne moom moo fi woyoon Biram Jeng Sall moom Biram Jeng Sall di mag ci moom moom nag la ñu invité fi nga xamante ni rek moom mooy émission guddi gi fële ca DTV tuur na fa ay xewal wax na ci ki nga xamante ni rek moom mooy euh, rakkam di Ami Collé Dieng ci absence bi nga xamante ni rek am na ko ci chaîne musicale bi ndax gën nañoo gis lool ki nga xamante ni rek moom mooy borom jëng saala mu ngi ñu xamal rek moom Ami Collé Dieng dafa tawat tawat boo xamante ni nag euh, mu ngi bëgg a yàgg ci moom selon les les informations nag euh, de kawteef ñu ngi xamal daal ñoom ginnaaw bi ñu defee seen ay recherche ñu ngi xamal ni moom Ami Collé Dieng ci boppam maanaam li ko dal du lenn rek lu dul mauvais esprit ñu koy wax rab ci olof maanaam daal loolu moom moo ko dugg ba jamono ji dafa am li nga xamante ni rek moom mooy problème mu xel euh, moo tax mu raar ci li nga xamante ni rek moom mooy chaine musicale bi moom Ami Collé Dieng daal tawatam boobu bu sukkandikoo ci information euh, kawteef daal ay rab moom moo ko song ba mu jëlee ci cee ñàkk xel ñu ñëw aussi ci beneen information euh, people ki nga xamante ni rek moom mooy Mara moom Mara nag kenn dootu ko présenté moom maara mi nga xamante ni moo doon ànd ak Sidi Diop moom Mara moomee ba Sidi Diop demee Italie fi nga xamante ni rek moom mooy tournée yi mu fa doon amal moom Mara dafa daal dina puccet daw moom ak njàpp ak ñi nga xamante ni rek daw nañ ca euh, boobule euh, tournée ginnaaw njàpp bu mu ñëwee rek moom Mara dafa daal di des ku ne Mara ne Sidi Diop ku ne Mara na subateel musique moom Mara daal lañu gis ci benn vidéo mu lonko mook ki nga xamante ni rek moom mooy euh, Wally Ballago Seck ci biir vidéo bi di ngeen gis image yi muy euh, fofile moom Mara daal lim ko wax moom mooy faramaaren bi daal sa label bi jamono ji fees na dell xanaa di nga kerewaat beneen label pour adhérents yi nga xamante ni dañ leen a renvoyé euh, par le patron moom Mara daal mu mel ni dégg nañ sax nag Mara dañoo for ci wéyu bay dafa bëgg a ñibbisi waaye bu ñibbisee nag day ñëw ànd ak ki nga xamante moom mooy Seck Faramareen bi ñu ñëw aussi ci actualité bi nga xamante ni ñeel na Thiat Seck muy koo xam ni kenn dootu ko présenté Sénégal muy artiste boo xamante ni ma nga fële ca euh, Géejawaay ca banlieue ba di ko ba mu nooy rawatina fi nga xamante ni moom mooy Raven Night Club moom Thiat Seck nag jëkkati na ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ni moom mooy Wally Ballago Seck moom nag ku ne xam na cofeel bi nga xamante ni amoon na ko ci Wally Seck temps yi la ñu génn Wally fekk na ko ca soiréem daal di koy jox caabi oto caabi oto boobu nag yaakaar naa ne ñëpp ko gisandoo woon à travers les réseaux sociaux Thiat Seck ci boppam génnaat na démb toog fa li nga xamante ni moom mooy DTV ci émission guddi bi daal di ne oto bi nga xamante ni Wally Seck daf ko ko mayoon oto bu xobidaas la oto bi baaxul oto bu xomaat la yemu ci moom Thiat sekk génnee na fan yi benn single daal di koy euh, dëjee ki nga xamante ni moom mooy faramaareen bi Wally Ballago Seck waaye lim ci teg moom Thiat Seck moom mooy Wally Seck woowu ko yónneew ko yónniwul ndaw ci moom autant pour moi waaye nag lim ci tegaat moom mooy day woo Wally Seck téléphone ba sonn du ko jot bu ko messager vocal Wally du ko tontu maanaam daal Wally dafa mel ni daal faaleetul ki nga xamante ni moom mooy caat ba ca am ci lu ko métti daal di koy génn wax moom euh, Adamo mi nga xamante ni rek lu ne mu dugg ci génn na moom tamit daal di def vidéo def na ay révélation yu doy waax ci Wally Seck ak li nga xamante ni ñoom ñooy entourage am recadré nag ki nga xamante ni moom mooy euh, a Seck nee na Wally Seck moom jot ko jot Macky Sall moom moo ko gën a yomb ndax ñoom dañuy dund loolu lu mel noonu waaye nag di mu ci tegaat moom Adamo moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy entourage Wally Seck ñoom ci boppam ku ci nekk dangay def ay xarfa fuufa maanaam da ngay liggéey ki nga xamante ni moom mooy waykat bi pour gën koo mën a euh, jege kenn ku nekk ci ñoom te nee na lépp loo xamante ni rek wax na ko ci dafa am ay preuve yu leer nañ yoo xamante ni rek ci la ko teg Pawlish Mbaye lii nga xamante ni mi ngi koy wax dëgg la ku xam na ni nag diggante Pawlish Mbaye ak ki nga xamante ni moom mooy Omaro neexul moom nag aadamoo euh, daal nay dëggal li nga xamante ni rek euh, moom la Pawlish mbay doon junj waaye nag li mu des li mu teg daal moom mooy Wally Seck daal ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko wër kenn ku nekk jege Wally Seck jaral na la lu ne maanaam jaral na la sax yóbbu ko ci sëriñ def ko loo xamante ni danga koy gën a jege ayox yi aadamoo la ñu ñëw aussi ci li nga xamante ni actualité people la te ñu ngi koy partager à travers les réseaux sociaux ki nga xamante ni rek moom mooy l'artiste chanteur di Carlou D moom moo nekkoon invité di jeraxu fële ca 2STV ci émission boobu noonu ñu duppee Plus mais émission bi nag dafa jeexee en queue de poisson maanaam daal woykat bi ci boppam di Carlou D dafa buddee li nga xamante ni rek moom mooy plateau bi bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xamante ni waa Kawtef dañ koo daal di joxe moom nag fin émission bi. lu mu tàggoo c'est simple ndax di nga ñëwaat moom Carlou D nee na dootul tegati tànkam fi nga xamante ni moom mooy 2STV rawatina émission boobu nga xamante ni rek moom mooy after plus ndax gisu fa professionnalisme gisu fa li nga xamante ni rek moom mooy euh, boppam ay waxi Carlou waaye nag bu ñu xoolee njëlbeenu émission bi gis nañ ki nga xamante ni rek moom mooy présentateur boobu di DJ euh, raxu moom ba muy wax ak ki nga xamante ni moom mooy Carlou di dafa meloon ni koo xamante ni daf ko doon conjugué au passé. ndax mi ngi koy xamal ne ko remarque la bi mu def ndaxte gëj na gis moom woykat bi daal di jouer wala mu def li nga xamante ni rek moom mooy ay Euh, single moom daal li nga xamante ni ñoom ñooy def même musique bi nga xamante ni moom lay def muy H the best ak Amadeus ñoom daal ñoo nekk jamono jii daal di yëngal li nga xamante ni moom mooy chaîne musicale am bi maanaam jël nañ li nga xamante ni rek moom mooy euh, place am yaakaar naa nag lu ni mel métti na lool ki nga xamante ni daal moom mooy Carlou D ba feewu émission bi daal mer mer la fa daal di euh, jugaale moom Carlou D daal mer na ba toj muy discute boo xamante ni doxoon na diggante Carlou D ak ki nga xamante rek mooy DJ Rakhou ca 2STV émission boobu di After Plus waaye moom woykat bi Carlou D daal di ci yem daal di ne génnaat def li nga xamante ni rek moom mooy euh, vidéo nee na nag événement bi muy euh, waajal lañu bëgg a euh, saboté mooy maanaam grand théâtre bi waaye nag bàyyi na lépp ci li nga xamante ni rek moom mooy loxo yàlla justifié wul rëccuwul benn yoon li nga xamante ni rek moom la wax ndaxte rek gis na depuis ba mbir mi amee ci li nga xamante ni rek moom mooy ay comptam muy Snap ak yeneen plateforme yi nga xamante ni fa doon véhiculer ay message am wala ay plateforme am la gis na bu baax a baax gars yi nu ñu désabonné waaye nag bàyyi na lépp ci li nga xamante ni rek moom mooy loxo yàlla moom Carlou D daal génnaan na def boobule vidéo ñu tëjee actualité people bi ak ki nga xamante ni moom mooy Ngaaka Blindé moom Ngaaka Blindé nag ku ne xam ne ni le décembre ci la war a janoo ak waa Akhlou Brick seen duel boobu nga xamante ni rek dañ ko uh, war a def moom Ngaaka nag di rapport bu géejawaay bi ginnaaw bi mu jàkkaarloog ay fansam di préparer li nga xamante ni moom mooy boobu le duel ak waa Akhlou Brick yëkkati na ay uh, kaddu nee nag waa Akhlou Brick rapport yu mbuur yooyu bu ñu falaatee grâce à moom la maanaam daal nañ ko sant gërëm ko bu baax baax ndax moom moo tax ñu renaître moom ay waxu ki nga xamante ne la rek moom mooy euh, Ngaaka Blindé waaye nag mi ngi xam ne la ay sam daal nañu dalal seen xel ndax le 2 décembre dina leen duma duma yu metti di leen jox dig daje très prochainement ci yeneen i actualité people d'ici là portez-vous bien et restez à suivre sur Equivox TV bye merci. ku ci nekk di def ay saaw xam nañ yan saal moo gën a nekk it depuis bi histoire bi di ñëw yàlla nag nattu ba ñu am benn wu muy Baba Ndiaye yaa day dëgg Ndakaaru